ci xalaatu njiitu réew mi Sall dialogue national bi ubbi na nañu ko niki àllarba yemook fanweeri fan benn ci weeru mai bi leen daje nag am ci jamono joo xam ne fitna bi bari na ci wàllu politique bi mu desee lu néew juróom-ñeenti weer ñu amal élection présidentielle yi di ñëw waaye président Macky Sall ba tey waxul lu leer ci ñetteelu candidature bi. mandat boo leen bëggee da koy ñaan ma leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag njëkk waaye par force doo nekk doo doo nekk candidat ñu teg ko ci lan ci seen bëgg-bëgg au nom de quoi ci langue politique bi dialogue national boobee sax nag dal dinay indi réeroo rawatina ci coalition bu opposition bi di yeewu askan wi bu fekkee ne ay parti yu ci mel ni Pastef les patriotes bu Ousmane Sonko danoo bañ a dem ci bile dialogue yeneen parti lu ci mel ni mouvement taxawu Sénégal ñoom nangu noo ñëw wuy si njiitum réew mi njiitam di xalifa sàll di xamle point yi nga xam ne bëgg nañu ñu boole ko ci anam yi ñuy amalee bile dialogue. La question il faut que ñu waxtaane ko que ñépp bokk ci élection bi mënul ñàkk que parrainage bi nga xam ni problème la fii day indi dissension il faut que ñu waxtaane ko les modifications des articles 57 29 30 et autres mënuñu ko bañ waxtaane dialogue national bi ñi nga xam ne ñoo teewal ñuy yëngu ci wàllu politique bi ci wàllu koom ci wàllu askan wi wàllu cosaan ak aada wàllu diine ndaw yi ak soxna yi ñëpp teewoon nañu fa li tax a jóg bile waxtaan nag bu ñu sukkandikoo ci ñi ko sabab mooy fexe ba ñu déggoo ci ay mbir yu bari bokk na ci dundinu askan wi waaye tamit ëllëgu réew mi